wa sa jeeg ji moom anañu bu dee aaw këram de <laughs> aaw buur këram mi ma xam yew na ca fajar waya budé kama xam bala yew midi une heure ila la wax ya wax loolu waw nga xam nak mo bax ci sa ndey ji hmm ma yek moma tek place aw buuru kërëm yag na fi amaluma ben njariñ boppam ah. la fi nekkal ciak ciak <laughs> ya yow mom da mel dañ laa sëlëme jëm ganna dama ne la olof njaay neena keur gu junni nek nga def sa junni sa junni perte waye keur gu junni nekul bo fa defé ñaat téeméer sax da ngay perte zéro ngay am yaay ñu ci oro nak sama awa bur keuram gi mu ngi ci oro yi yow mi yow lay waxal eh, Chat, xam nga man yaay sama xarit gis nga jéegu keur gi xam nga yow gan nga fi xamoo li xew ci keur gi bul nangu kula fi yoni bul nangu kula debbulo nokos xam nga jéeg ji dañoo taamu xale bu nekk ci kër ga kaay nokk sal ma kaay dëbbal ma. yow yow yow yow yow yow yow yaa may sax yow li ma damaa am temps bu may perte day fii si gàll mi naan damay dëbbal kenn ay nokkos. pour jéeg ji ci kër gi damay ci kër gi dañ lay dëbbaloo nokkos. man maa di taraab samay taraab nga naan ma ay nokkos. waaw yow am temps wu dëbb nokkos. taraab maa wax lii xale bii. xale war a nekk ci kër di bale wala muy raxas wala muy togg bu sëyee man liggéey. da koy tere kenn du ko dëbbaloo. waaw waaw waaw maa ngi salaam ay yow sama goro baa ngi noonu mën naa iya, la jamaa balan <laughs> macha allah yaa ngi jàmm alhamdulilah yaay mënoo ma woon a woo ma taal oto bi jël si xam maa loolu de bañ laa sonal rek moo tax nag loolu yoon nag yaay dëgg la waaye nag léppay baax ndax yow dangaa dara du la sonal dëgg la borom jasineer borom kol <laughs> borom fuddën Non la laf chat. Ya ya baax ndax yaa ma gis rek ma ni sa doom dëgg yaa ñu indil ki ñu bëgg. Mhm. c'est normal ñu toppatoo la c'est normal ñu daw ci say waaw bàyyi say tere. yow bokkoo ci goro yi nga xam ne seeni jabaru doom day sëy si ba pare ñu teg ko bët yow lu ma la defalul rek dama ko amul nag. mère Diama Noir baax nga. tubaarika eh. Alima ça va. sant yàlla. ah mais sa bi hmm. la da moo dégg. kii istile bi mu istile moo la metti yow modde nga yow longtemps nga moo tax loolu mooy metti sa xol bi. man damaa yaakaar ne loolu mooy sax sa jabaru càmmeñ jekk mel na war a mel waaye am na njëkk yoo xam ne tant que seen jabaru càmmeñ yooyul bay doxe bant duñu kontaan. waaye ay kii kii mooy sama caat mi mooy rose bi ma joxoon fàndaw. rose nekk nii. rose nekk ah, nii rose rose dinaa paate la mooy ñaareel. ah dangaa màgg. ah na gàddu rek rose rek. ay affaire dafa màgg loolu noonu lañ koy waxee nit. baax na fii fi màgg. waaw yaa ngi nii xaw ma nga jógee sa daaw bu baax bi yow yaa kii kii kala sax kii kala. awul ki mooy ñaareelu bi ngay waxu waxu daaw waaye luy daaw di yow. waaw ah, nelaw daa dof. kii kii bi toogukaay bi. toogukaay la. ay ay Rose. kii kii moom bi laa. goro baal ma rek dama koo joxe woon. yoo xam ne damay insister li may wax maa maa ne kii tuunam bi daa baax. non illallah <laughs> yaay garaaw safurla dama ko bëgg lu ko neex na wax lii moo tax ñu bari duñ nangoo joxe seen doom xam nga ne Fanda waxuma ko woon mu yàqal ma sama doom ji nii <laughs> woon na ma di waa Alima lii dafa neex ci tàngaay <laughs> da ngay laaj bëgg a xam aaw bi ci kër gi mm. nga ne fajar lay yeew mm. ñëw nuyu xam nga ne mooy jaar ci yu baax yi waay wallaay noonu Alima nag euh, dangaa wax lu ma ñor mooy sama aaw bi ah, tubaari kàlla nag mu boot ma roganti ma ayaa dama naan jàppewu ma doom la ma jàppee yaatal ma ci njabootam gi nag ba ma xaj yow kenn nga ci ñun yaay suñu njëkke ayaa li mu war a def rek nag la la defal ayaa moom mbaaxam dañ naa ko mbaax sa fasa da koo war rek ne du ko waaj mbaa xam nga ni lii sama bopp bi moo jënd suba defaral ma ko yu baax yooyu lay def moo tax ma koy jéem a roy <laughs> yaay xaar doo ko lekk ne damaa waaru man moo tax joxe sa doom baaxul ndax yéen ba pare de ndekki nañ ba pare waaye ni ngay def sa loxoy diko di def ni ni ni ni moom mooy pour nan <laughs> baxna bu ne ni amo njëgu nak dajale ko te jema rang ca mam fa sek xamni di nga ndëpp ki di ko ndëppal de. <laughs> ka dama waar ma eh, kay ni la la wax. ma jëm ni sama gaay sama yaay bi defal nii sa baram gatt yi. lemal eh, ñaari nga def ñaari ni sama yaay mu ni nii waaw mère ngi nii. Ah. clip bu bes bi projet bi xamna naa dinañ ko si ah, jël. sa kanam gi ni nak du jël te li moy ah mbay jërëjëf yal na la yalla fay ya gën ci sama biir gën ci sama ma sha allah motax sama sis bi damay ñëw ba sa buntu neeg nako fi denj te xam olof ndjay nee ragal day ma sha allah fa tabarakallah rëccuwuma luma doon jure sa jëkkër ya bax ci man bax ci sama biir bax ci sama yaram ya ma yeboo ma

ata balel ma nak tegal ma nap yi takal ma bobet xana ay wax day jeex kon man ndékki midi 30 luma koy doy seta ta sa bop njëkk ci pax mi nak sap genné fang nak mo la dal ñu nan gorobi da bëgg ki ak da bañ ci té nak ku bax ci man ma bax ci moom dé nga dé nga la bax yaay wa kay bay dama bëggoon rek tay ñu waxtaan acca dama laa bëggoon laaj man la la def <laughs> yaangi doro ñew doro wax wax bi nak lañ nan delo fa sab loxo fa nga wopp xasan mo la dal laaj nga ma laaj bu am importance laaj bu laaj laaj bo xam dal ma sha allah dama ci dama ci sawara tontu sama seut bi di maya lay laaj yow loko ko bañe ak lum la def dem naa ba xam bañoko baayam nga bañ ak ndayu baayam ndax su ma fi nekkee ngay jàpp xale bi di ko torturer di ko toroxal soo ko gisee mel ni ko gis sa butit bii te jur ko foo ko teg ni ko bañee rek laa la bañee. dégg nga wala déggoo. dégg naa la bu baax. voilà waaye dama bëgg nga xam lenn. ñu jur nga doom waaye bañ ko. li nga defee de moom bañ laa si gis. waaye nag dëgg yëpp la ñu war a wax. ah dëgg gu ñuy nëbb gu ñuy ba bañ sa doom. te am nañu bëgg doom am amuñu ko ngay torturer xalé bi fu mu toll nga yaaka ne lool neex na ma man mi mamam lool tax ma bañ la bu ma tojal ko di fi jooy yëgadi kan sa ndek li nga dem ndekki ko de nga ya, ding ko jël ci ni ko ëndé woon Ah, mau impan jadi berdi joy. Untuk hmm, dong impan kau banyak banyak babak gadai. Bagai tangga sama kau bedek jap, kau negeri kau dua kotor terokal. Dua fi am jamu, budi dua fi am jamu becek. Yeah, lu di sini. bés boo dof dof loo ma rey kii ma koy rey bo loos bi mooy métti ma koy tegal njëganaay. ñaari njëganaay dañu nekk ngay bëgg a teg beneen njëganaay. dégguloo xanaa bi dafay métti ma koy tegal njëganaay. kay la yaay kay fii laa wax xaaral ma def la ko njëganaay yaay ñëwal. Maya te dama fee ñëwoon pour ñu waxtaan. yow lan la lan mooy problème maye yow classe sa mënutoo fexe ba am note yu baax en même temps classe na ngay absenté wu ba instant bii nii ñoo ngi naan sax yow mi est amoo dépression école bi yëpp nag yow la ñuy waxtaane Maya c'est quoi problème lan la. dara. xoolal ma li nga sol dara àndu ceeg moroomam yaa ngi croisé kenn xamul looy ndirool lan la. du dara de. ay waay ndaw Samba du dara Maya waxoo ma lii man xam naa la bu baax man ak yow presque ñoo defandoo lépp kon boo taxee fi di ma naan du dara waxoo ma dëgg nag may nëbb ah Maya lan la nga sumb say rongoñ di jooy Maya yaa ngi may nëbb waxoo ma li am Maya man ngay nëbb man sa meilleur ami man ngay nëbb ba munoo wax ak man. waaye yaay li nga doon def sànq noo ko mu nii nga laa doon def sànq ci bi yaay dama nga bëgg Maya déggoo ma ni la Maya loo sa mooy metti dama ko doon ya? nga taxaw fi dama la nga bëgg Maya nan laay ya, Temu Maya dama jur ko dama fekk fa ñaari jegenaay xanaa déggoo li ma la wax loo sa mooy nelaw ma ko ya bugoraymaya xanaa mayaa ya, ya ya kan gis jur sodom, sodom musuh magis jur sodom bapak ce point yaay dellu ci sa xel ak lu mu mënti doon mayaa pas doom la place bi nga ma teg fa maya pas que mooy sa taaw nga ñuy duñu sa ning may traité man pourquoi do ko traité non ma yaa mais alors que da nga koy maltraité alors que sa dom la maa jour ma jour ma ñu jour na dom waye bañ ko ni dama gis ni bugo ma lu wara tax bugo ko man lool la xamul du deug yeb lañu wara wax du deug yeb lañu wara wax du deug yeb lañu wara xam ah kon nu koy 回来了？回来。妈妈，你家，我昨天都卧床了，你快点嘛。奶奶来屋里来打牌，我来干。哎，都买啊！的。 oh yow kam ma doon laa tudd man liggéey ma koy seet ne yow kam loolu laa wax. Ousseyn tur tur yooyu mooy genre tur yam ay Ousseyn wax ma yow sa tur yow la kam nga doon fee doon. wax ma sa tur normal nga doog a dugg si kër gi wala déggoo ma. kër jàmm doo xool ni ngay fëggee nekk si bunt bi gëng gëng gëng man maa ngi nii si douche bi laa nekkoon dem bay jonkan ngay fëgg sa fëgg lii yow ka ngay seet sax na fi mbay laay seet yow la kan man maay caatu gàlle bi maay kaara gàlle bi maay jiwu gàlle bi man damaa ñëw saa su waa man la waaw ani na fi na fi sama xarit la yéen nag yéen ñuy ànd yéen ñëpp la seen tuur di rëy sa xarit la de ah. waaw sama copine la. Diallo nag maa ngi fay yow bu ma xoolee nii. moo ma de metti kay. waaw aussi. jànk. ci loo ne. maa ngi nii rek yow. yaa ngi am jàmm. maa ngi si jàmm. aywa sa borobu la kale bi. ma nga fay gën a piir saa yu xëyee gën a aj baat bi moom daal bëggul dara jàmm. waaye yow yaa ngi nelaw. na fi nan lay nelawee. ma nga sonn. na fi dama sonn sern lépp laa am fi mu toll nii bu bëccëgee ñu mbugal laa mbugal ba boo tëddee guddi da ngay jooy ba sonn. dara doo ko def dul xalaat mais yow heureusement sa goro moo la ba sa njëkke bëgg la man sama goro moo bëgg sama njëkke bañ na <laughs> dawaa jaaxal waaye waxuma loolu na ubbil kan laa danga fëgg ki ma ubbi kooku de yekk na ma njaagaan njaay maa ngi woon ci balcon bi di wax moo tax déggoo clos bi lu mel dafa xaw a gàtt nii de mu nga sol nag colin ngoo xamante rose xale bi lu ma waxul da ko fas sama njëkke la muy jaatu ñoom baate kii muy seen caat bi muy seen caat bi xale la rek mi ngi soolam quinze ans kii mbaa xam nga ne yëgul dara lu ne wax na ma ba malaa mu maa ubbil lu la wax ubbil ma ne ma heure bii ngay fëgg buntu kër jàmbur <laughs> te way naan koy seet li ma ci suba du ko yekk naa man sa bungu rëy yi kon man baal ma noppal ndax nee ma ah dafa may xaritam yëpp seen bun yi dañoo rëy te ma jàllal nee ma la ma ko wax nañu gros mot barki yow dugg ah, ah da ngay dama may sama goro fi eh, ak sama njëkk bi bañ daa daa ci convoi bi noonu. ana mu na waaye dootu ko defati li des ci laay fa alima <laughs> alima de nee man lay yàq yaay baaba jaan noonu ci suba ñu ne salaamaaleykum gaaw gaaw voilà heure ndékki alima ne man lay yàq naan ma xola aw buur këram de moo gën nag man fii ayaa man sama diggante ak ayaa moom dakaa mën a yàq yàq na ko bu xamoon ni nga mel ak Aya hmm. ak ni ngeen mel yéen ñaar rek ñaari wujj yu juboo ci réew mi bu ko xamee woon noonu du jéem dara dara ah. waaye nag mi ngi ni jànq na mi ngi ci 33 ans nii de mos ta dégg alxayr dina ci yàgg ko gaaw a dégg léegi nag ci li ma bëgg a woo jànq dama koo xam moo tax ma woo la ne la ay wax la ma woo ak bëgg a gëmloo meer bi ne ko na fi du togg lu yàq du raxas tubab la jàppee boppam mo waral tay mu simmeeku di doon laay faal. dalaa xamul. dugg ci waañ fas yéene ceebal meer ma wan leen ni man doomu géwël la bu ñu paré ma defal leen was mu melni jamm déggo ma de su paré paree was bi defal leen zéro pour du koy ñu dégg xëy moom. ma la leen ay mer gaal ma leen tëdd leen na xam nga lan mooy problème Alima bañ nit ki ba do xol li bax ci moom bu la xamoon dëgg gis nga bo yekkee tay sa ciébu jël la lepp di leer. ben ba sour ba jeex ko jom. man kay xam nga lu ma sant yàlla ba bi ñuy ñëw fekk fi kumba mhm. ndax dem na sama kër yaay mais bu doon def fee fekk kumba leneen lay doon dëgg la kumba de xam nga dawul coow kumba lépp luy éviter moom daw bañu ci dara xam naa alima day wax mu rentré ko teg ko ne kumba dafa wér kumba ni ñëw nañu daa ñëw kumba yëg na ni ñëw na rek daana fi ñëw est-ce que doo ko ci wax mu toog du ma ko wax mu toog déggoo ma rek alima fu ma cottee gauche cott ko fa droite xoolal mag mën naa rukk laalu ba mu moo ko dara bi ñëw alima bandi la du maag moom daf maa bëgg a jaay ci yaayam dama koy ëffal ak sama ak dégg doo ko naw ceeb laay def ne mu tegal sa saaj bi <laughs> jàppale ma ci dëbb beeg yu sew sewaan doo ko nettali xam nga lu may def dugg daal sa néeg simeeku ñëw simeeku ubbi la armoire bi sa mbir bi robb robb booy <laughs>